di leen jox seen wàccuwaay. macha allah euh, di leen wax nag moom ñëw naa sama kër parce que Sen TV moom sama kër la ko am. effectivement sa biir kër nga nekk dinañ ci ñëw léegi léegi ci ni mu gën a yaatoo incha allah laata loolu rek ñuy dalal sunu yaay maman Aïcha. Mhm. daal di fas yéene waxtaanee wàllu société mais également euh, li nga xamante ne ne Sénégalais yëpp ñu ngi koy dund jamono ji muy yokkute bi ñu nemmeeku ci njëgub euh, mburu bi ma Aïcha. Euh, ni nga ko waxee fatiment noonu la jamono ji nag euh, yokkute bi metti na ci askan wi waaye euh, balaa ñuy sóobu ci waxtaan bi dañuy ànd ak maam di mu jukkil ñu rek benn vox pop maanaam micro trottoir boo xamante ne Amina Cissé def na ko ci askan wi bu ko defee ñu sóobu ci waxtaan bi. tey moom gars yi ñu ngi jaay cent soixante quinze te aussi loolu jaaduwul ndax boo boo stocké sa farine. jeexagul ñu ne suba lañ commencé yokk yoo nga commencé yokk tey loolu jaadu man damaa gedd seen mburu ba tey cere ak meew laa ndekkee te xam naa ne léegi naa dem ci cere ak meew ba ak fonde bi rek tubaarkàll. Sénégalais yi boo xool 12 pour cent yëpp mburu la ñuy kon nañ état bi jàpp wàññi leen ñuy jaay far bi yor jàpp ci ñu wàññi xam ne Sénégal gépp ñoo ko bokk am na ñoo xam ne nag mburu bi intéressé leen am na ñoo xam ne intéressé na leen ñuy jaay nañu wàññi ñuy jëndoot xam ne kat loolu moo mën a nekk ñu jàpp ci xam ne Sénégal daal la ñu am nañ jàpp-jàpp bu baax daal nañ jàpp wàññi mburu bu baax a baax am na ñoo xam ne mënuñoo xëy te ndekkeewuñu mburu ñuy jaay farine bi wot ñu yàpp ci a a baax Sénégal am jàmm mais fekk fekke fekke loolu loolu yokk nañ ko mais est-ce que poids bi dina di ni ko ñi bëggee est-ce que ñoom poids bi dinañ ko yokkee noonu 10 grammes est-ce que dinañ ñoom ko yokk parce que mën nañu ne ni di grammes te duñu yokk di di 10 grammes n'est-ce su boobaa kon ñun ñoo ñun ñooy conséquence ñun ñun ñun consommateurs yi ñu ñoo koy subir te gouvernement war na jël euh, ay contrôle yoo xam ne pour ñu ñoo ni mën di contrôler boulangerie parce que gouvernement am na droit dugg si boulangerie contrôler leen pour pour pour loolu. parce que ñoom dañuy ne dañuy dañuy dañuy jekk ne yokk nañu suñu yokkee léegi yow ñoom instant bi nii euh, seen seen stock bi ñu yoroon dañ koy yokk commencé jaay jaay si boobu. te pourtant stock bi ñu ko ñu ko ñu ko ko ñu ko jënd si stock bële par rapport loolu daal loolu àq war nañ am yë dawal si yërmande dimbali population bi wax dëgg yàlla sonn nañ trop trop trop trop. dafa war a am suivi parce que su yokk nañ ci 10 grammes it boulanger yokk 10 te aussi buñ ne yokk nañ prix pain ñoom bu ñoom buñ yokkee prix buñ yokkee farine bi ñu yokk prix bi bis bu ñu wàññee farine dañuy maintenir prix bi ñu yokkaat farin ñoom ñu yokkaat prix bi encore bu ñu wàññee farine li laay war a suul yi nañ wàññi nañ wàññi pain bi nañ wàññi prix pain balaa ñu ko woon yokk nag mën nañ toog ñu waxtaan ba pare ñu xool ba xam. xam ba loolu tamit day metti day metti ci client yi ne metti ci ñun ñëpp lay metti euh, Taïcha xam naa ne euh, sama mbokk séeréer yi mer nañ ba fut naka noonu siyeen yi ak njaaye yi par rapport ak yokkute bi waaw euh, Fatima ñuy jaajëfal ñooñu nga xamante ne rek yëkkati dañ seen kàddu te jii ci yokkute bi am ci mburu mi di jaajëfal itam Amina Cissé mhm. ci Vox Pop bi di wax ne rek askan wi sonn nañu askan wi sonn nañu te wax fa dëgg yàlla ku yuuxu rek euh, danga njëkk ragal maanaam waaye ñëpp sonn fii mu nekk nii. Mhm. dañuy wax ne dañ daan yokk dañ daan yokk nit ñi di ci bàyyi xel waaye daawuñu ko gëm effectivement daal ne affaire bi dina ñëw waaye fii mu toll nii. mburu mi nekk na nécessité boo xam ne sénégalais dañ ko tàmm di ko añee di ko reeree di ko ndékkee. Mhm. xale boo ci joxul mburu suba teel sax danaa ndékkiwul kon mu nekk euh, situation boo xam ne métti na ci père de famille ci mère de famille métti itam ci njaboot gi. Mhm. ndax mburu mi bu fekkee ne yow da nga koy jënd mu nekk mburu moo xam ne sax xaw naa diis. Mhm. bi ñuy jaay ñeent fukki dërëm. mu nekk mburu mu diis nga mën cee lekk xaaj ba sax waaye léegi da jox xale kilo mburu mu lekk ba mu jeex ba pare ne la suuruma <laughs> donc mu nekk jafe-jafe boo xam ne waxtaanoon nañ ci temps yële yëpp jamono yële. Mhm. maanaam boulanger yi ñu ngi doon ñu ngi doon junj li ni mel. Mhm. ndax dañ doon wax ne dañoo bëgg yokk dañuy yokk ndax ñoom it duñ ci gis seen bopp ñi ñuy liggéey ñiy liggéey ci wàllu mburu mi dañoo bari kon ku ci nekk war na cee gis boppam état bi di taaxilu du taaxilu tey jii effectivement ci la yëf yi war a maanaam ci la ñu ko war tàmbali njaay mi benn kilo bi daan jar fanweeri dërëm ñu koy jaayee fanweeri dërëm ak juróom juróom yi ci teg pour lan. moo yi ñëpp boo ko wàññiwul loo ko cee teg. ñi ci nekk yëpp par exemple chaine da boo xam ne ku ci nekk seet da nga ciy liggéey waaye ba ki yóbbu mburu mi ci biti gi nga xam ne tere woon nañ leen ko sax kooku am na lu mu ciy am. Mm-hmm. boo ko jàppee fii ak weer nga xam ne kooku noonu pël fuuta mi moom nee na ma moom da ciy génn. jarul ñu ciy yokk juróomi dërëm. dangay xool ñun suñu réew yi nga xam ne dañoo sës si ñun fu ci mel ni Mauritanie. dërëm la ñuy yokk ci mburu mi rek mais ay jamono dañoo toog ni jëndatuñu mburu mi mais ñun mënuñu ko def lu tax. parce que tout le temps luñ ñu teg rek ñu tegoo ko. tey jii buñ ci yokkee juróomi dërëm ñëpp jug ne jënduñu mburu mi bàyyi ko de xoolal defal sa doom fonde mu bañ ko mu neex ko nga forcé ko ko defal sa beñe jox sa njaboot mais écoute bu yàggee dinañu wàññi mburu mi. parce que buy lamb ci seeni loxo mënuñu ko tuuri. Mhm. séeréer yi koy jëlaat di ko yóbbu dëkk ba sax bu bu bu baree duñ ko yóbbu. Mhm. parce que dañ naan lii fuñ koy def. Mhm. xar yi nga xamante ne mbir yoo lañ leen koy jox sax bu yàggee chapelure bi ñu ciy def sax bu mais mais ñu bàyyi ko ñu bàyyi ko bu buñ ko bàyyi ab diir rek. léegi ñu dellu siwaat ci seen i wax waaye nag ñun moom mhm. tàmm nañ lu ñu tegoo rek ñu tegoo ko euh, tata Aïcha doguma la sax dañ ne woon que ni bu ñu fekkee dañuy yokk mburu bi dinañ yokk poids bi mais dafa mel ni ne ne oh. euh, yokkuñu ci dara et aujourd'hui ñu gis ne boulanger yi si seen bopp euh, ñi ñi leen di liggéeyal ñoo ñoo gën a sonn ñoom si seen poste la def mais ñi nga xamante ne sax la ñuy kaas ñoom pour ñu yokk affaire bi bu fekkoon ne ña ñuy liggéeyal sax danañ ci gis seen bopp mu tane mais ñooñu sax gisuñu seen bopp te njaboot gi fu mu toll nii ñëpp dañoo benn façon de parler rek xam nga ñoom yàgg nañu gis na mburu démb beeg mburu tey bi boo ko jëlee amul benn coppite ba ñuy jaayee deux cent francs ba ñuy jaayee fanweeri dërëm laa lay wax nii amul coppite donc c'est par la peine vraiment ñuy jël yenn wax yi di ko bëgg a dëggala nit ñi seen bopp yi naan lii la nii non non non dëkk bi toll na foo xam ne fii mu nekk ni dañoo war a taxaw nag xam ne yokk bi metti na metti ne ci panier de la ménagère parce que kër yu bari jigéen ñee leen yor jigéen ñee xëy fajar dem jëndi jën dem jaayi ñëw togg añ mm-hmm. boo gisee xale yi di lambar lambar ni le matin parce que gisuñu seeni i waajur seen i waajur dañuy xëy suba teel daw dóori waar góor ñi daal di tëdd di xaar naaj bu tàng mais am na foo xamante ne tey jii dafa jot nag dafa jot eh, góor ñi jóg yokk dépense bi sax nag bu dee juróomi dërëm yooyu ñuy wax nañ ko xeex ñu yokkal ñu ko ci biir dépense bi ndax nag wax dëgg yàlla jamono metti na mhm. te nguur gi tamit wax dëgg yàlla fii mu toll nii man ba pandémie bi tàmbaloon ba léegi dañ doon wax naan waaw dinañ yokk dinañ yokk ñu koy ruumanaat mhm. waaye ñu ko woon de mais fii mu nekk nii mbir mi xaj na wulee ñaayu na mu meloon waaye jot na nag jot na parce bu ñu jël